daal leen nag jàmm cadre de concertation de coordination et d'action de plaidoyer de la société civile pour la santé au Sénégal ñu gën ko xam ci 3CAP santé mooy amal ab plaidoyer ngir ñu gën a ñoŋal prise en charge urgence yi ci bërëbu fajukaay fii ci Sénégal nee nañu nag ay solution yu jàmp lañu ñu war a taxawal ngir loolee mën a antu Alioune Badara Sow mooy coordonnateur bu secrétariat technique permanent bu 3CAP santé. urgence yi ci ni mu ko gisee mooy euh, dafa am ñaari fànn fànn boo xam ne responsabilité la ak communauté yi ak fànn boo xam ne responsabilité prestataire yi la li nga xam ne mooy respect euh, responsabilité communauté yi mooy dañuy toog ba mu ne kë këtti na jon këtti na jon ñu doraa di andi seen malade bu ko ñëpp defee mais les structures de santé vont être débordées da dem foofu fekk fa vingt urgences fekk fa un nombre de prestataires assez limité euh, pour prendre en charge toute toute cette situation d'urgence là donc il faut que nit ñu bàyyi seen xel di def plus de prévention ko ak waa Kër Docteur. au niveau des structures sanitaires aussi il faut que ñu améliorer la qualité de l'accueil waaw ah, c'est important que nit bu ñëwee nga dalal ko euh, dinaa koy dégg ci ci émission yu bari ñu ci ñu ci wax ah dalal ko euh, dëfal ko euh, et puis jox ko. pajtal euh, gi nga xam ne moom la moom la soxla en tout cas am na beaucoup d' amélioration yoo xam ne war nañ ko def au niveau des structures sanitaires à tous les niveaux nag muy case de santé bi muy poste de santé bi muy euh, hôpital quel que soit le niveau hôpital niveau un deux ou trois je ne sais pas mais à tous les niveau c' est important que ñu améliorer la qualité de l' accueil pour mu booster euh, et am impact positif euh, ci lu ni mel sax ministre de la santé et de l'action sociale docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye euh, mu ngi dalal xel yi ne département mu ngi def lépp lu mu mën di yëngu it ci wàllu communication ngir maladie ñu mën leen a toppatoo na mu waree ci bërëbu fajukaay yi mu bàyyi le kàddu gannaaw ba au conseil des collectivités territoriales doon ko auditionné mardi ci troisième session ordinaire bu année 2023 ministre bi jaare na fa sax fàttali jéego yu mag yi nga xam ne nguuru Sénégal def na ko ci réew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

permanent du 3 Cap Santé. C'est très vrai ce que vous dites. Euh, la question de la prise en charge euh, des situations d'urgence au niveau de nos établissements euh, sanitaires doit être euh, euh mieux appréhendée et des solutions idoines trouvées. Euh, ça pose problème que quelqu'un qui est dans le besoin, euh, quelqu'un qui est en situation d'urgence, comme on dit, ne puisse pas accéder au moment où il en a besoin des soins nécessaires. Ça peut être le cas d'une personne lambda, mais aussi ça peut être le cas de femmes. On a eu dire que des femmes ont, ont accouché sur, des charrettes. Euh, euh, on a eu, euh, euh eu que des femmes ont perdu la vie malheureusement parce que les soins appropriés n'avaient pas été délivrés à temps. Euh, mais en tout état de cause, il est important que gouvernement, société civile, communauté euh, joignent leurs efforts pour impacter positivement sur le taux de mortalité et même euh, sur la morbidité. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a assuré à cet effet que son de communication pour aider à une bonne prise en charge des malades dans les structures de santé. Elle intervenait lors de son audition mardi par les membres du Haut Conseil de sa de l'année 2023. Le ministre